ziar naa leen képp ku nekk ci seen bi maa ngi lay bëgg di kontaan ci yow di la ñaanal jàmm ñaanal leen tawfiix ak euh, jàmm ak salaam sàkku ci yéen abonné yi merengue yi maa ngi leen di ñaanal catalan yi nga xam ne ay célibataire lan sama gars yi ma tooñ leen ñoom ñi nga xam ne daanaka amul kenn ku ci marié ñoom ñëpp maanaam ay doxandéem lan xaw a nuru ñu baal ma <laughs> ay doxandéem lan xaw a nuru ndax duñ joxe dépense ginnaaw yëgle bi ñu continuer yëgle kaay gars yi ni ñu leen di toppalee maanaam seen chantier ñun Taïba Taïba yi ba chantier bi ngeen jot seen i caabi ñu ngi ci période nag maanaam monté lamp yi moo tax daanaka ma présenté leen ci suñ sawrine bi nga xam ne moo nekk marché central bu Thiès Taïba Taïba yi ne fa sawrine boobee nag tey lamp yi nga xam ni moom mujj a génn ci dernière génération yi nga xam ni adduna wala ngal kàpp boo ko doon coytu doo fa gis lamp yu gën jaar yoon gën a originalité tey it ñu jënd ko ci njëg goo xam ni lan leen ko mën a jaayee dana mucc ayib ngeen for dara te du am benn jafe-jafe nag tey ji moom laa leen andil façon lamp bu dul bu jinne am na ci suñu place la leen koy may nag mooy ngeen def seen commande yow mi ne Thiès mën ngaa gaaw def euh, sa commande yow mi fa nekkul mën ngaa dàbban ñi bu baax a baax xool ah, fi nga mën a jaar ci téléphone yi ba mën a jot ci say bagage ñu jaay ko njëggu yomb lépp nag tawféex lay doon fii ci Taïba Taïba yi numéro téléphone yaa ngoog Moussa ak ñim àndal Ousseynou ak Assane ñoom ñëpp am nañ xol bu sedd ak péexte goo xam ni ah, dalal client yi bu ko defee bu ñuy jot seen i caabi ñu mën koo jot ci barke ah, ndax liggéey bu mucc ay bi nga xam ni gone yi ñu ngi koy am ci suñ sawrun bii mayoo noonee am na catalan bu ni ma moom saa bu xëyee joxe dépense si jàmbaar la yëglekaay yooyu dañ koy commencé ak Mundo Deportivo La Corogne moom nag li mu indi ci xëttam mu njëkk nag ñett ñett yi la indi mooy li nga xam ne Barcelone def na ko waaye nag am na ceeba moo xam ni xalaat na ko ba gis ni jàpp na ni kii di Lamine Yamal wax dëgg yàlla dékku na li mu man ci ba waaye nag yàlla def na ñoom ñu def match nii loolee nag maanaam di ñaari poñ yoo xam ni wàññi nañ koo yëglekaay bi daal di gis ñoom ñëpp nag kum ci man di doon mu indi photo boo xam ne dafa dar bopp ba dar bopp ba mooy jàpp na ni mënoon nanoo am lu raw lii waaye nag ci suuf yëglaay ba gis nañ fa kii lee nga xam ne mooy Bellingham mu tëdd ci suuf jàpp tànk ba loolee day xam le ni gone gi dana am euh, lu yàgg loo xam ne maam dana ko toog du football waaye ba ma ko gëstoo nag xool naa ne ñetti semaine moom mi di Bellingham waru koo romb waaye sport tamit ñëw na ci li nga xam ni salsalato bi kii di euh, Lamine Yamal def yemul moom it ñu gis ko taxawaayam tamit moom rek la indi ci xëta bu njëkk ñu xam ni kon li mu bëgg wax lépp mënta paase Lamine Yambaar jàmbaar la kii di marka yëglikaay rek bi nga xam ni moo ëpp doole ci ci réewum Espagne tey ay pro merengue lépp loo xam ne Real Madrid mi ngi koy doxal moo ci gën gaaw te it moo ca Marca dëgg mooy dëgg-dëgg Real Madrid li mu indi ci xëtam bu njëkk nag kii di Bellingham mu jàpp tànk ba naga mu wiñaaru ko loolee nag xam ngeen ni ab blessé boo xam ne kon fi mu toll nii série na blessé boobee daanaka confirmé nañ ko alerte la ci match bi nga xam ni moom la Real Madrid di football ak Leipzig gone gi du ca bokk ndax bokkul sax ñi nga xam ne ñoo war a dem fële nga xam ne mooy Leipzig ci El Hadji Malick TV danañ ci ñëw ah, ci kanam tuuti loolee am solo bu baax a baax Barcelone mi témboo yëglikaay bi ñëw na ci waaye as yëglikaay turandoo tey li mu indi dëkkandoo yi la dem moo dem fenn Atlético mu nërmeelu teg na ko ci taabal ji indiwaat keneen koo xam ne daanaka soriwut ak ku nërmeelu uh, di Barcelone mi nga xam ne témboo la def ñett ñett waaye ca suufu yëglekaay ba coppati na fa kii di Bellingham mu naroon a jaxase carte gi waaye nag ab doublé la teg ci taabal ji waaye nag fi mu toll nii triplé la tegaat ci taabal ji mooy ñetti semaine yoo xam ne du ko bokk ci football xanaa ñu ñaanal ko jàmm ak salaam bégg leen bu baax a baax sàkku ci yéen abonnement yi jërë ngeen jëf